Maam Cheikh Ibrahima Fall édition 2019 amal nañ ko ci teewaayu kilifa yu bëri di bés bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahima Fall amee woon ngërëm ci Cheikhul Khadim njàngum alxuraanul karim zikkar ay ziyaar yoo xam ne amal nañ ko ci kanamu Serigne Bassirou Fall alxuraan mi nga xam ne mooy amal màggal gi ci cérémonie officielle bi ñëwaat nañ ci taxawaayu Cheikh Ibrahima Fall ci kanamu Serigne Touba. Omar yar nit ñi ci lislaam ba kenn ñi mu wala lëng Moustapha kenn ñi mu wala taalale loxo taalale tànk. kenn du ko dànd di ko woo kenn dugg cim néeg te woowu la kenn def loxo ci ndab te yonent bi desalul loolu Cheikh Ibra ko liggéeyal sëriñ Touba mu jaral ko ba kanam Cheikh Ibra noonu na sëñ Bamba ku koy tudd di tudd keneen ak ñàkk xam la mbaa kiñaan waaye amul nawle loolu laa bëgg nu xam ko bu dul woon Cheikh Ibrahima Fall benn sëriñ du am addiya ak sëriñ boo mën a doon Cheikh Ibra mat li mu doon. xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacke Bachir yabal na fa délégation boo xamante ni Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Fallou Souhaïbou ànd kook Serigne Cheikh Ibrahima Mbacke moom Serigne Mountakha Bachir ñu ñëw daal di fàttali taxawaay bi nga xam ne xalif général des Mourides am na ko ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall. kon nag Cheikh Ibrahima moom Cheikh Ibrahima Fall Mouride la te Serigne Touba Serigne Touba Serigne lim fi nekk nekkal te mate ko sëkk nag ci anam yëpp téewut saa yu ne fu mu toll day gën a ko ak taalibeem di feddali pas-pasam ci diggam ak Sëñ Tuubaa moo tax lépp luñ tudd Seex Ibra rek du ca am sago moo tax mu ñor ko ñorin wii mu ko ñor yabal doomi boppam doyoon na sëkk yabal ci këram ay jëwriñ yoo xam ne lañ fay def bu ñu fa jógee ba bañ fay delluwaat duñ am ku leen ca wuutu loolu mooy wane ne ñor na ko ak taalibe ci boppam nag ak pas-pas moo ko ñor te Cheikh Ibrahima mooy ak taalibe mooy ak pas-pas mooy lépp Sëñ Tuubaa ci yoon wi ba bañ ko ba tudde ko Baabul Muridiina kon nag ñu ngi sant bu baax a baax euh, Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne sëñ Bachir Fall alxuraan. délégation bu nguurug Sénégal Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma moo ko jiitee ànd kooku mboolem kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci diwaan bi. kon foog naa ne su ci bisu maam Cheikh Ibrahima Fall foog naa lu jaadu la lu yell la mu jàpp ndaw yebal ko fi mu ñëw teew fi ànd ak yéen bis bi ngir feddali kóllëre gi ngir feddali cofeel gi ngir jëmmal lu baax li nga xam ne lépp seq ngeen ko te mu yàgg lool di ñaan rek sunu borom gën ko suuxat suñu borom gën koo dëgëral te lépp nekk njariñu réew mi lépp nekk njariñu taalibe yi lépp nekk njariñu askan bi comité d'organisation bu màggalug maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne Serigne Bassirou Fall Cokke moo ko jiite ànd kook mbooleem njaboot gi bég nañ ci taxawaay yi nga xam ne nguur gi jël nañ ko ci màggal gi lee président Macky Sall mi ko fi yebal. ak président Macky Sall mi ko fi yebal. ak mboolem administration bi nekk fii ci région bi. ak mboolem ñu ànd ak nekk fii ci région bi. maa ngi leen di sant. ñu ngi leen di sant. di ko di ko seereen mbooloo mépp. di ko seereen mbooloo mépp. ñu fonk sëriñ bi lañ. ñu fonk sëriñ bi lañ. ñu ko jàppale lañ. ñu ko jàppale lañ. ndax Cheikh Abdoulaye mii. ndax Cheikh Abdoulaye mii. bi mu jógee président Macky Sall ba tey. bi mu jógee bi mu jógee président Macky Sall ba tey. président Macky Sall fetliwaat na kóllëram digganteem ak sëriñ bi. président Macky Sall fetli na digganteem ak sëriñ bi. waaw su ko defloo nag du ma ko wax nag. ne su ko defloo nag du ko wax nag. nag. waaw ndax am na ñeneen ñu fi nekkoon te waxuma leen. ndax am na ñeneen ñu fi nekkoon te waxuma leen. waaye moom ko sant la. waaye moom ko sant la. ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gépp. ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gépp. ak njabootu koy seedeel ñëpp. nee ñu koy seedeel ndax Serigne bi képp na la. ñun am nay doléance yoo xam ne fësal nañ ko fa kilifa yi fàttalikoo ñi nga xam ne ñoo fa teewal nguur gi ci mbooleem ponk yi nga xamante ni quartier bi mënu koo ñàkk te nguur gi war koo def. waaye amul aw yoon wu fi ñëw amul ay làmp yu ko leeral amul am ndox mu doy amul ay fajukaay. te kër yaa ngi màgg nit ñi nekk fi soxla li doomu aadama yépp di soxla. màggal gi mooy bés bi nga xamante ni ci la Cheikh Ibrahima fal amee woon ngërëm ci Cheikhul Khadim ñu ko daan màggalee ca Tiwaawoon léegi ñu indi ko fi nga xam ne moo di ci Touba Mbacké ki di Serigne Bassirou Fall alxuraan amoon ndigal di ko fi màggale Yeah! <laughs>